liggéey mooy daan doole ñaq wut loo dunde ndax li ko wutalee xitma xitma mooy da ngay def dara séntu ci fayug ëllëg def ko ngir yàlla te séntu ci fayug ëllëg bu dee nag daan doole mooy loo xam ne da nga koy def waaye da ci ciy séntu fayuk tay loo dunde kon loolu lañu bëgg a waxtaane ci yoonu murit ni ñu fonke liggéey ak Serigne Touba nim ci soññee ak mag ñi àndoon ak Serigne bi ni ñu jëmmale loolu ba wàccee ko ba ci jamonoy tey jii murid yi seen taxawaay ci liggéey ndax ku ne xam na ne économie bi senegal ci wàllu goo jël rek loxo murid yi buñ ci génnoon économie bi yaakaar naan day daanu loolu nag ci sëriñ bi lañ ko jàngee ci loolu lañ bëgg a waxtaanee kon loolu mooy thème bi niñ ko bëggee waxtaanee nag mooy dañ koy séddale ci ñett ñeenti tomb la ci njëkk mooy ñu xamle jëmmi solos liggéey ci lislaam l'islam nan la soññee ci liggéey ak yonent bi salla nan la ci soññee ak it liggéey dafa am ay condition yoo xam ne l'islam da koo teg yooyu mooy yan ak it façon liggéey bi nga xam ne nit ki da koo war a liggéey ak façon ni liggéey bi nga xam ne waru koo liggéey ak bu dee liggéey yan condition yi la war a liggéey rek ngir mu dëppoog l'islam loolu sëñ Bassirou Faye dana ñëw ci ñëwoon bu noppee sëñ Abdoulaye Bousso dana ñëw ci Serigne Touba ci ay mbindam ni mu soññee jullit ñi rawatina murid ci liggéey waaye ni mu ko jëmbalee ndax ku ne xam ne sëriñ bi ci zaahir amul woon jot ndax mi ngi woon ci loxoy tubaab yi waaye lim doon ñàkk-ñàkk di jot du tee lam bëggoon ci wàllu liggéey na mu ko doon waxe fexe na ba defar ay mag ñoo xam ne nii tasaare la woon nañ ci réew mi ñu sanc ay dëkk toj ay àll daal liggéey di ñaq di am lu ñu dundee ba tax na ku ne xam ne ne sëriñ bi mu demee ci géej gi dénkoon maam Thierno eh, eh, njaboot gi eh, sëñ Dame Abdourahmane Lo yoroon daara ji waaye am na mag ñoo xam ni dana leen dénkoon ñoom ñu dem di liggéey yi di bay lañ cay jëlee ñu koy andi di ko dundale jamono. Serigne Touba nag bi nga xamee ne ñëw na jamono daa ñëw fekk lu bare baree bari ci ruuxul islaam sànku naka noonu sunu boroom noonu la daan doxale saa su nekk da daan yónni ay yonent yonent yi di ñëw di defar jamono moom moo gën a xam ni mu koy defee mbooloo mu nekk lañ yeyoo rek ba muy wàcc ay yonent day wàcc ay yonent ñu leen di toppatoo ci seen diggante ak seen boroom li ñu xamul ci diggante jëflante ci àdduna mu leen koy xamal ba loolu yeesoo muy defar ay góor yàlla ay nit ñoo xam ne moo leen waajalal boppam ñu wéyal risaala jooba maanaam yoneen boobu ñu ñu wéyal ko di ko doxal ci kaw suuf sëriñ bi nag muccul ci lool yi ànd ak ay mayi boppam yu kawe kawe yu rëy rëy ndax dafa wax ne diinun siwaa islaamihi la yuhmat inda al ilaahi wa bihi nu jaddit lislaam lay beesal si te mooy diine fa yàlla man nag cheikhul xadim diine jooju lay beesal ci baatu beesal nag ci diine du caaginu indi ay aayaat yu bees ak ay yu araam yu bees ak yu dagan yu bees du loolu waaye am na loo xam ne ci diine la bokk naka jëkk waaye nit ñi fonkatuñ ko nga ñëw yee ko ci seen yaram ba ñu taxawaat ci di ko def nañ ko war a defee kon waxtaan wi ci bunt boobu lay dugg Euh, nga xam ne lislaam moo digle liggéey noonu ko sëñ maam Cheikh waxee lislaam moo digle liggéey ci loolu la ñuy ñëw li ci des nga xam ne ay exemple la yu wér wér sëñ Abdoulaye Bousso bu ñëwee ci yoon wi yoonu wi sëñ Touba xàll dana ci ñëw yaatal ci bokk na kon ci beesal yooyu sëriñ Touba beesal lislaam mooy baatu liggéey ni ko indiwaate nim ko fonctionneele nit ñi di ko jëf bokk na ci itam euh, fàggu lu dagan ñaari waxin yépp lañ koy wax ndax boo gisee ñu koy wax ñaari waxin dafa am baat bu ñuy tuddee al amalu si lislaam day ñëw ci alquran waaye baat bi léeg-léeg buy ñëwee maanaam mi muy yor maanaam jaamu yàlla lay yor day mel ni boo ko xoolee it euh, jaamu yàlla liggéey la maanaam euh, fa sunu borom waxee ne wa ma xalaqtu l insa wal jinna illa li binduma nit ak jin jinne lu dul ñu may jaamu day mel ni kon jaamu gi day fonction la liggéey la moo tax suñu boroom léeg-léeg danaan liggéey leen waaye maanaam boo ko xoolee jaamu leen lay lay lay dikkee jaamu leen lay dikkee noonu itam ci mbind yi sëñ tuubaa day binde noonu day jëfandikoo amal mu doon liggéey yug jaamu waaye da koy jëfandikoo mu doon fàggulu lew kasbul xalaal baatu fàggulu lew loolu nag moom la ñuy waxtaanee fàggulu leew loolu mooy yéenee liggéey jariñu ba mën a jariñe ngir jëmm yàlla ndax bu fekkoon ne liggéey kese ab jullit li ko wuutaleeg keneen keneen moom mën naa liggéey su ko neexee yàq waaye jullit moom sañuta toog ne du liggéey ndax liggéey daa bokk ci ak jaamu donte amut sax waaye day kër-këri di def dara la muy def bu ci amut dara it mu doon ak jaamu yàlla ci moom su ko ci suñ boroom joxee dara it sañu ko yàq moom lu mu bari bari fi kanamam da koy teg ci yoon waaye du ci yàq dara kon nañu xam ne keroog ba nga xamee ne Serigne Touba feeñal na yoonu murit muy yoon woo xam ne li muy dox dëgg-dëgg mooy forme bakkani doomu aadama yi maanaam ñëw tàggataat bakkan yi ba lu bari loo xam ne seen cër yi mënatu ko ñu defaraat bakkan yi ba cër yi mënaatu ko sëriñ Touba yar nit ñi ci tariqatul iraada mooy yoonu murit li muy firi mooy sellal ay jëf ak bëgg yàlla bëgg soobu jëm ci moom te yàlla rekk a tax ndax sëriñ bi day wax ne ab murit kat munta doon murit dëgg dëgg dëgg ndere wala dul day sàkku ngërëmal yàlla fu mu mën a jublu rekk kon nañu xam ne ni ñuy melale ab murit mooy koo xam ne dafa bàyyi nammeel yépp jublu yàlla lu mu defati rek yàlla tax képp koo xam ne nag képp koo xam ne eggul ci loolu yi kooku du mën a jëm ci sunu boroom waaye ku ci yegg nag ci boroom bi la jëm te dana yegg te aw yiw rek lay méngoo loolu sëñ bi da koy wax ci ay waxin isil muridu laa yuridu abada gayra rida arrahmani xaysu xasada wasfu lmuridi tarkuhu l iraada li wajhi man yafalu ma araada man lam yurid cheyan siwa mawla yasil lahu wa aw awla kon nañu xam ne muridiya méthodologie la boo xam ne bu mat sëkk la lépp la ëndaale li laal bakkan ak ruux ak li laal yaram nga xam ne wàllu matière la mu indi équilibre bu mat sëkk boo xam ne dara du ci dem bàyyi moroomam waaye lépp lay tàggat loolu nag dañ koy def laltaayu waxtaan wi muy kon liggéey li muy jëriñ mooy nit ki wattu tedd nga am ndax yàlla sunu borom bi nga xamee ne bind na doomu aadama da ko bind teral ko ngir mu am tedd nga joo xam ne ci lay mën a defe li mu war a def ci lay mën a jaamoo yàlla dégg nga ci lay taxawale diineem ci biir loolu mu boole koo wuti xam-xam doomu aadama fu mën a ne day war a xamlu fu mën a ne day war a jaamu boo gisee ñoom ñaar ñu taqale leen ndax jaamu gu àndul ak xam da sotti loo bëgg-bëgg lu baax danga koy jéem a xamlu ngir xam foo ko mën a jaar boo ko xamluwul du baax loo mën a jaamu-jaamu loo xam-xam te àndut ak teggintam du mën a jariñ dara moo tax yooyu ñoom dañ leen a lëkkale ñoom ñooy ànd ngir murit bi mën a faj ay soxlay boppam mën a joxe ci yoonu yàlla mën a dimbali ko tumurànke mën a participer ci projet yi nga xam ne ay projet lislaam lañ ak dundal suuf ni nga xam ne noonu la ko sunu borom santaanee nga xam ne dafa bind nit ñi indi leen ci àdduna ngir ñu dundal si suuf si loolu ndigalu sunu boroom la boo ko xoolee kenn mënu koo def te nanguta liggéey yooyu yëpp bala ko nit kee mën a def ci biir lislaam faw day mën a liggéey léegi nag bu nit ñi demee ba xamatuñ loolu day jar ak fàttali ñu xam ne liggéey lu am solo la lu mënta ñàkk ci lislaam ah, fàggulu leew loolu yi nag kenn du ko euh, séddale maanaam deesu ko taqale ak jaamuy jëmm yi ci lislaam ni nga xam ne nit ki noonu la war a jullee di ko woore di ko natte azaka bu ko mënee di ko aja màkka su ko mënee noonu la war a defee ci xelam ne daa war di xëy daa war di liggéey di fàgg lu lew di ci mën a taxaw ni ko lislaam bëggee sëriñ bi da koy wax ne al al ilmu wala amalu jawharaani li xayra yiddaarayni yajlubaan xam-xam ak jëfe li nga xam ñaari wurus lañ yoo xam ne dafa gànjaru lool te ñoom ñaar ñëpp ñoo lay may texe fii ci àdduna ñoo lay may texe fële ci àllaaxira kon bu ñu waxee àdduna liggéey bee tax ak li nga fiy def te yàlla gërëm ko waaye àllaaxira këru payeeku la mu wax feneen ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi geyri waham sàkku lu lew kooku faratal maanaam nit ki na def ci xelam ne liggéey bi ko lislaam di faratal tam waxu xeetu liggéey bu la neex nga tàbbi ci waaye liggéey bi nga xam ne moom la lislaam digle mooy liggéey boo xam ne la nga fay am day lew doom da nga koy mën a jariñoo ndaxte fi mën a amee dara bari na waaye lislaam moom seetul loolu moo tax lu baree bari lislaam di ko araamal donte nit ñi dañ ciy am dara carte carte lislaam da koy araamal ba bañ ko ba ba aaya bi ñëwee dane ne donte am na njariñ ndax nit ki ko defoon am ci dara munoo ne ko li amul njariñ waaye njariñ la kat fi tekkiwul dara ci lor lor yim àndal moo tax sunu boroom lépp lu lew loolu lay jël waaye lu lew soxlawu ko du ko laal jullit bi tam foofu la war a nekk buy fàggu tam mu fàggu lu lew bañ cee rax dara loo xam ne dañ koy xebet wala dara lu ñuy xeeb wala lislaam di ko di ko bañ ñu xam ne tamit euh, liggéey moom mooy euh, mooy wattu liberté doomu aadama fi mu ne nii boo bëggee moom sa bopp si lislaam lislaam da lay digal liggéey mën nga ne sax loolu maqsad la ci maanaam jubluwaay la ci ngir nga mën a moom sa bopp ci li dagan ci li dagan ndax moom sa bopp it daa am fu mu yem waaye fi nga xam ne foofu la la ci lislaam may ngir nga mën koo wattu sax faaw nga nangoo liggéey ngir nga am lii ñuy tuddee indépendance faaw nga nangoo liggéey ngir jaww ji la wër dal nga mën a jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell boo xam ne du ànd ak benn pression faaw nga nangoo liggéey ndax lenn lu ci ne loo ci xeeb boo koy def doo ko defee sago wala boo koy def doo ko defee ak tàlli ndax yaafuus moo koy wane wala ak tàyyal loolu lislaam nanguwu ko nanguwu ko benn yoon am na aaya bu nekk ci alquran sunu borom di fa wax ne julli li muy foor foor su ngeen ko defee ba noppi julli day représenté yenn xeeti jaamu yàlla yëpp rek su ngeen ko defee ba noppi na ngeen ci teg dem yëngutu ji wuti lu lew ngir yore ko seen bopp fa ida xudiyat salaatu fantashiru fi l ard wabtaxu min fadlillah léegi su ngeen julleetee ba noppi nangeen tasaaroo ci kaw suuf si kenn ku nekk am fu mu dugg ngeen dem wuti lu lew loo xam ne bu julli jotatee ngeen def ko waaye bu liggéeyi jotatee ngeen ngeen def ko loolu fi mu ne alquran la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firi ko ci ay xadiis yoo xam ne maanaa moomu rekk lay yor kon nañu xam ne daal liggéey warteef la ci lislaam du mbiru coobarewu rek maanaam du caaginu li ñuy tuddee optionel maanaam obligatoire la du coobarewu nit ki faw dafa war a wut lu muy def donte amut ndax am moom mbirum suñu borom la waaye liggéey mbirum ñëpp la am na ñoo xam ne duñ yëngu lu bari yàlla am lu mu leen jox am ñoo xam ne dañuy def ba sonn loolu cëri suñu borom la waaye li nga xam ne loolu la yàlla dégle mooy nit ki moom warteef la ci moom mu fàggu lu lew dem wuti ko ci ci anam bu dagan kon lépp loo xam ne fàggu lu lew loolu moom la àndal mënoo fàggu lu lew te boole woo ko ak loolee kon na nga xam ne loola it day mujj soppiku doon farata ni moom loolu lislaam la maanaam li lay may a farata la muy àndal faaw moom it farata lay doon loolu li muy firi mooy bu liggéey doonee farata kon dem nàmm sa xel nàmm sa xel ba méngale ko ak li xew ci jamono méngale ko ak niñ mën a fàggoo lu leew loolu day doon farata loolu moo tax nit ñi di wut ay expérience di jéem a xamlu di jéem a xool fu mbir yi toll moo tax nit ki dafa war a def léegi niñ koy tuddee ci wàllu ressources humaines maanaam ba ci jàng sax day jàng jàngu xam jàngale jàng goo xam ne bokk na ak lii xew wala marché emploi bi da koo soxla wala yu noonu loolu itam dafa bokk ci jéem a wuyu li lislaam wax bu ko defee jéem a xam marché bi lu mu soxla ci àdduna jéem a xam mbooleem yëngatu yi nga xam ne day indi bénéfice te dagan mu jéem a xam yooyu nuñ ko mën a defee jéem a xam lu ñuy tuddee wàllu euh, investissement investissement naka laa mën a yore ab dërëm euh, di ko wëlbati ci commerce ba mu nekk téeméer naka laa ko mën a dugale fenn mu jur lu gën a bari loolu bu ko defee àdduna tam foofu la toll ndax am na xeeti liggéeyan yu njëkk yu yàgg yoo xam ne xëy na nit ki daan na ci def coono bu baree bari te mën naa am la ci daan ñëw du du bari lool waaye jumtukaayu xel fi mu toll ak fi àdduna yegg léegi bari na liggéey yoo xam ne li ci ëpp xel moo koy jiite doole ji féete ginnaaw wala boo leen boolee ñoom ñaar li muy indi mooy mooy gën a bari boo ko méngaleeg ci jamono ju njëkk ja bu ko defee loolu la ñuy tuddee tamit euh, si wàllu ressources humaines bokk na ci iqtisaadu nafaqaat ba ci côté wu dépasse nga xool noo koy économiser maanaam li nga li nga am doo ko yàq ndax lislaam day tere yàq nañ xam ne kon loolu lépp nag ci lislaam benn reegal moo ko tënk bu ñuy tuddee taqwallaahi ragal yàlla maanaam liggéey moom faw da ngay ragal yàlla ndax yàlla sunu boroom moom ku teey la te soxlawul lu dul lu teey ñu koy wax ci baati arab ne inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba wala yu'badu llahu bilmaalil xaraam alal ju lewut kenn mënu cee jaamu yàlla alal ju lewut kenn mënu cee jaamu yàlla loolu dafa war a tax nit ñi xalaat bu baax a baax ndax àdduna fi mu toll ak jumtukaay yi fi mu toll bari na nu nit ki di amee dara waaye ci anam bi mu koy amee day day fekk lislaam gërëmu ko ndax boo xoolee lu mel ni xeetu portable yi am na ay application yoo xam ne nit ñi mën nañ cee yend suba ba ngoon nga dend ak nit di waxtaan ak moom ba yàgg mu doxantu ju ñëw daal di indi xaalis bu bees dégg nga doo xam fu mu ko jëlee loolu lislaam bëgg na ko am waaye bëggul ko am ci ak yaafuus moo tax li nga xam ne yaafus la wala ñu bari dajale seen yëf kenn jël ko dem ñi ci toog ñi ñi des toog di xoole loolu lislaam da koy araamal loolu mooy xeetu carte moo tax nit ki bu fekkee dafa tënk boppam si lislaam tënk na boppam ci loo xam ne faw day xool ni lislaam doxe muy doxe noonu lislaam nanguwul alal ju araam ndax alal ju araam munta jaamu yàlla nit ku koy jëfandikoo ay cëram day nagam lu mu bëgg def ci digganteem ak boroomam du ko mën du ci sawar bokk na ci jaamu yi xam ngeen ne li ñuy tudde ak ñaan ñaan yàlla sunu boroom mu nangul la sag ñaan loolu jaamu la te boo xoolee téere yi nga xam ne ñooy jottalikoo wàllu ñaan dañ ne e, e, e, bokk na ci charte nangu ñaan lekk lu lew maanaam jëfandikoo lu lew bokk na ci charte nangu ñaan kon loolu lu jar a bàyyi xel la dañuy nettali xadis boo xam ne abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma moom moo ko nettali ñu ne dafa am aaya alquran bu wàcc sunu boroom ne yéen nit ñi na lekk jëfandikoo kaw suuf ci wàllu mbay yi ci aju te sàmmoo jëfandikoo lu lew kulu mimma yaa ayuha nnaasu kulu mimma fi l ardi xalaalan tayiba na ngeen góorgóorlu bay jëfandikoo lu lew te teey ba loolu amee saad kenn la woon ci saxaabatul kiram daal di ne e, saad bi abi waqaas daal di bi sallallahu alayhi wa sallam man dama bëgg nga ñaanal ma ne ko loo bëgg ma ñaanal mu ne dama bëgg nga ñaanal ma yàlla nangu sama ñaan bi mu ne yonente bi dama bëgg nga ñaanal ma yàlla nangu sama ñaan yonente bi ne dënn tuuti ne ne ko yow Saad eh, na nga fexe bay lekk lu lew na fexe bay lekk lew ne ko booy lekk lu lew sunu borom dana nangu say ñaan kon daa di daa di daa di ne nag wallazi nafsi bi yaddi yonente bi da daan giñe noonu maa ngi giñ ci ki nga xam ne moo yor sama bakkan eh, doomu aadama bi day bu jëlee lekk gu daganut aw ñam wu daganut sànni ko ci biiram nee na euh, te loolee lewut lewut dana toog ñeen fukki fukki fan yoo xam ne lu mu ñaan sunu borom sunu borom du ko nangu kon nga xam ne jullit moom dafa am fuñ ko tënk foo xam ne mënu koo teggi kon nag euh, liñ mën a def ci fàggulu lew mooy jéem a yaatal suñuy pexe yaatal pexe yi mooy yi dagan bari na ndax sunu boroom moo bind xayraat yi moo bind xéewal yi te nit ñi rekk a ko tax a jóg ndax moom soxlawu ci dara ñu koy ciy ñaan mu ñuy ciy may waaye ñaan gi tam day ànd ak def ay ay pexe ak i effort lu mel ni wàllu mbay lu mën a maye dara la boo xoolee suuf si daanaka lu ci bëri exploité wuñ ko boo xoolee ndaw ñi ñenn ñi egg nañ ci ba ci di dugg ci ay gaal di dem ci ay dëkk yoo xam ne risque bu ne dañ koy jël te moo ne kat ñi ngi bàyyi ci seen wet loo xam ne buñ ko exploité mën naa doon dara am ku am xel ñu doon waxtaan mu ne ma leen na ma jaaxal mu ne ma ñi nga xam ne dañuy dugg ci e, gaal yi di dem ci beneen dëkk di wuti dara li ma jaaxal bu ñu wàccee ci dëkk bañ jëm ay nit lañ fay fekk ma ne bu ñu fa doon fekk daal yeneen mbindeef yoo xam ne la fa ne ñoo ko fa def nee na loolu dana yenu maanaa waaye bu ñu fa demee ñu mel ni ñoom lañu fay fekk léegi nag kon loolu mooy kon bay ci sa wewu tànk am na lu la yàlla bindal ci sa wet loo xam ne xëy na boo ko toppatoo mën naa jur dara lu mel ni commerce mi ngi fi bu dagan lu mel ni industrie mi ngi fi lu mel ni yar ak jur lu mel ni xeeti métier yi enseignement professionnel bari na lu mel ni wàllum contracteur lu jëm ci wàllu tabax ak yooyu métier yooyu ak lépp lu ci laal am xelum euh, tàmbulee lu tuuti bëgg koo def lu bari loolu tamit bokk na ci soññee liggéey ndax da ngay am na ñoo xam ne dañuy tëb bëgg a yegg fi ñu jëm te moo ne nit da ngaa war a tàmbalee ci benn wut ñaar ñett jëm ci téeméer waaye xëy bëgg a am téeméer loolu dafa jombulu daanaka munta nekk kon nit ki bu mu xeeb dara lépp lu mu def ci bunt bu dagan lum néew néew su ko yàqut te teg ko ci anam e, bu jaadu bu yàggee dana doon dara waaye nag bu fekkee ne gas di suul di liggéey di yàq wala nga yenn liggéey bi loo xam ne attunu ko dégg nga bu boobaa tamit jafe-jafe day am kon bu ñuy wax liggéey ci biir lislaam tam maanaam am xel moo ko yeggale ci biir lislaam kon daal ci tënku loolu nañu xam ne liggéey lu lislaam digle la moo xam aayaat alxuraan yi ko wax yu bëree bari la maam bu ñu ko doon wax it benn wax bi lay doon rek mooy liggéey leen ndax ngeen mën a jëriñu xadiis mi nga xam ne lépp lu alxuraan indiwul moo koy indi wala li mu wax te e, e, nekk luñ munta dégg mu leeralal ñu ko bañ mën koo dégg moom it dégg ngeen liñ ci wax nit ñu baax ñi nga xam ne e, ñooy saxaabatul kiraam kenn ku ci nekk daan na def dara soo jàngee taarixu saxaaba ñoom bañ am na ci ñoo xam ne ñenn ñi ay junni junni giléem lañ daan jor te suuf siñ dëkkoon désert la daanaka mbay du fa ñor daanaka waaye terewul loolu lépp dan daañ am ay waajtaay yoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam bu daan dem jihaad sax dégg nga ñenn ñi dañuy jaayante e, ci ya nit ñu soxla ci wàllum xeej yañ soxla ci jamono yooyu mbub mbubb koŋ yañ daan sol ci xeeti fas yeeg giléem yéeg la tolloog jamono booba am nañu ko dara ñoo xam ne loolu ñoo ko daan taxawee mu mel ni lislaam bu taxawee ba yëgg fii loola doon na ci dara kon liggéey lu mënta ñàkk la ah loolu euh, mooy tënku euh, kon euh, waxtaan wi bu ko defee li ci des nga xam ne mooy wàcc ci yoonu murit ak ni ko sëñ Touba jëmmale ci mag ñi fi nekkoon yeesal ci lislaam noonu ma ko waxee woon ci tàmbali ba ñu jox sëñ Abdul Ahad Bousso bu ko defee mu yeggalee wet googu ah, jërë ngeen jëf ci teewlu gi ak dal gi wasalaamualeykum eh, wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahiim. alhamdulilahi rabbil aalamiin. wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursaliin. sayyidina wa mawlaana muhammadin al amiin. wa ala aalihi wa saxbihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. di leen ziyaar te di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gi di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mourtada di ko ziyaare moom tam di ko ndokkeel mu mel ne ngeen njëkkanteeg waxtu wi rek ni ko sëriñ Bassirou junjee ci tàmbali bi mel na wax wax xam naa ne liggéey moom kon ndeke lu am solo la te lu am wàccuwaay la ci lislaam waaye ginnaaw sëriñ bi moom dafa ñëwoon ngir beesal ci dina yi lislaam faw bu ñëwee itam wàccuwaay bi ko lislaam jox rek ak solo sa sa ko lislaam jox lu mel noonu dañuy fekk ci am njàngaleem waaye day mel da ciy fes lool sëriñ bi mu mënoon tënk aw am njàngaleem delloo ko ci ay cosaan ak ay reen yoo xam ne moo ko taw dañuy wax ne liggéey bokk na ci ponk yi gën a mag nga xam ne ñoom ñoo tawu njàngaleem sëriñ bu mag bi ba tax na am na sax ñu jàpp ne ñoo xam ne dem nañ ba mujj jàpp ne moom murid yi daal seen yoon wi yoon liggéey rek la ndax fes goo xam ne liggéey fes na ko ci te loolu njuumte la ndax kenn ku ne xam na ne sëñ bi moom njàngaleem bi ak yoonam bi dafa matale dafa matale lépp lislaam a ngi ci yoonu xam-xam la yoonu jaamu yàlla la yoonu liggéey la ak ay teggin yu rafet ak yeneen ak yeneen ci yoo xam ne manis na koo tudd kon daal mel na ne liggéey moom principe la principe mooy baas la walla fondement la bu dëgër ci yoonu murit te loolu sëñ bi moo ko tabaxee noonu moo ko jàngale noonu moo tax sax ni ko mbokk yi jindee rek sëñ bi moom fàggulu lew la ko daan tudde néew na bu mu masaa jëfandikoo baatub amal ci ay mbindam fu ñu gisee mu wax alamal rek lam ci jublu mooy jëf ju baax alamalu saalix mooy jaamu yàlla waaye moom fàggulu lew daan wax kasbul xalaal wala talabul xalaal wala iltimaasul xalaal ngir rek am fu ñu bëgg a delloo ci li nga xam moo war a tax jóg moo moo moo war a tax ñuy liggéey waaye bi ñu xoolee solo si nga xam ne sëñ bi jox na ko liggéey ak ni mu ko jàngalee day mel ne la see jiitu mooy te sëriñ Basiru juñu na ko ngir ñu mën a dund lu lew ñu liggéey moo tax liggéey doon farata ñu di dundal lu lew faw ñuy liggéey te buñ du dundal lu lew day mel ne buñ jaamoo yàlla yàlla suñu borom du ko nangu buñ ñaanee yàlla itam yàlla suñu borom du ko nangu waxuma loolu sax waaye ca war teg jaamu yàlla sax lañ dut am bu fekkee li ñuy dunde lewut dañuy dunde lu araam dañuy dunde riba ak yu ni demee dootuñu mën a sax far jaamu yàlla jaamu yàlla day diis ci ñun lool te buñ ko defoon itam yàlla amu ci soxla ndax yàlla ku teey la koo xam ne lu baax rek lay jël ginnaaw noonu la demee nag kon sëñ bi xam ne moom liggéey mënta ñàkk mu wane ci ay mbindam ne farata la wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xeyri wahami sàkku lu lew dal farata la ci bépp jullit bu mën di doon waaye ni mu nekkee farata noonu nga war a fexee na kon ba li ngay dundee nekk lu lew ci kaw nga nangoo liggéey am na fu ñu waxee ci biir mbindam naan mbooloo mi yéen mbooloo mi da ngeen fexe ba moytu ni ko lekk lu araam ndax day xañe ak njub dalay lay jéng ba doo mën a tegu ci yoon na ngeen di sàkk lu lew ci waxtu man di doon ndax bu ngeen dee dundee lu lew mooy tax ngeen mën a jaamu yàlla mu ne sa biir bi itam bu ci def dara lu araam wala dara loo xam ne lu lënt la sax waxuma lu araam waaye lu lënt loo xam ne xamoo boo xam ne lew naa lewut sax bu ko def sa biir bi mu ne boo bëggee topp yàlla topp gu bir topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lekkal lu lew waxaat sax ne xam-xam ak jaamu yàlla du am njariñ bu fekkee li ñuy dundee nekkul lu lew kon loolu mooy la cay jiitu leneen li ci topp mooy liggéey mooy tax ñu mën a sukkandiku ci suñu bopp loolu itam sëñ bi dañu koo jàngal bu fekkee ñu ngi liggéey mooy tax ñu mën a am lu ñu suturloo mooy tax ñu mën a am lu ñu yoree suñu bopp mooy tax ñu mën a taxaw suñu njaboot taxaw suñu bopp ba kenn du duñu mënal lenn ba di ñu sañal te loolu simu bi daf koo jàngale jàngale mu leer wax nañ ne bi mu bëggee taxawal jumaay Tuubaa ji ca yoon wu njëkk wa joxe woon na ci ay sas murit bu ne na joxe nàngam ba ñu dajalee lañ cay dajale ba joxe sas ya ba indi ko wax ca wax ju am solo ne lii ma def de jubluwuma ci dajale alal ak di ko dugal foo xam ne mooy foo ko bëgg dugal rek waaye li ma ci jublu ma dama leen na bëgg a jàngal jàng leen àdduna ndax bu ëllëgee soxla su ngeen amati mën koo fajal seen bopp ngeen di sukkandiku seen bopp ndax kat képp ku la mënal sañal la te yàlla fekk muy ko la war a sañal kon loolu sëñ bi moo ko waxoon mag ñi muy ab bind bu am solo boo xam ne dafa mel ni ñoom itam déggoon nañ ko liggéey moom dafa bokkoon ci ni mu leen daan yare di leen ci tàggat ngir ñu nekk ay liggéeykat taaliba yi nekk ay liggéeykat nekk nit ñu sawar boo xoolee Cheikh Mouhamadul Basir ci Minanul Baaxil Xadim junjoon na fa wax ju am solo war na rek booy xool fii ci gox bi di Sénégal ak xeet yi fi nekkoon rawatina wolof yi tàyyeel daal tàyyeel daa nekkoon loo xam ne daa fés ci ñoom na ñu bare bari ci ñoo xam ne liggéey daal xam nga liggéey moom ku tàyyeel du ko def mu ne tàyyeel bokkoon na ci li fés ci ñoom sëñ bi nag bi ñuy yar di beesal di leen jàngal di leen teg ci yoon bokk na ci leen doon yare mooy di leen liggéeyloo liggéey yu baree bari ñuy yëkkati ak teg waxtu wu ne rek dawuñ ko neeral saa yu ne am na lu ñuy def dawuñ toog loxo yi neen dawuñ noppalu saa yu ne ña ngay yëngatu loolu mooy li mu doon yare mag bi nga xam ne guddi sax ña ngay yëkkatee ka di root ak mu leen di liggéeyloo ay liggéey yu baree bari nga xam loolu day dindi ci ñoom tàyyal ndax nit bu demee ba sawar nangoo nangoo yëngutu rek dana nekk ab liggéeykat waaye yëmut ci loola mooy di tàggat ci ñu mën a am ak xerañ ci yenn liggéey yi sax far ci méthode bi mu doon yare fexe na ba taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci ronam liggéey yi nga xam ne moo xewoon ci jamono booba ci ay xeeti mbay ak ay xeeti defar moo xam ne lu aj wàllu dénk la wala ay xeeti der ak ya ci aju taalibe di ko jàngaale di ko man te fekk ñu ngi ci biir ronam mu leen di yar nga xam ne kon formation professionnelle moom dafa bokkoon ci biir ni mu daan yaree ak ni mu daan jàngale waaye dindi ak tàyyeel ci nit ki ba nga xam ne liggéey liggéey bu lu metti metti rek dana ko nangoo dékku dana am xereñ gi waaye itam du xeeb benn liggéey ndax rëy gi léegi gën a dindiwaat ci ñoom sax moo tax bokk na ci ni mu daan yaree daana fekk sax ñoo xam ne daawuñ am métier waaye jàng ak julleek yooyu rek lañ daan def ñoom daal ñu daan wax ay doomi soxna waaye mu jël leen daal di wëlbati safaani yëf yi yóbbu leen ci ñu am ay métier am na métier yoo xam ne am na ñu ko daan def ñu leen di joxañ naan ñii ñooy def lii ñii ñooy def lii waaye moom loolu da koo ñëw safaani ko ñi nga xam ne ñoo jàppoon ne waruñoo jàng mu yóbbu la ñu dem jàngi leen jàng ñëpp ko war a def loolu doon jàng ñi nga xam dañu doon jàng rek nga xam daawuñu am ay métier daawuñu def yenn métier yi mën naa am sax léeg ñu xaw ko xeeb mu na leen ne lii moom liggéey la te liggéey ñëpp ko war a def te amul benn liggéey bi ñu war a xeeb loolu da ko doon dindi ci ñoom nga xam ne ko nit ki dana am cawarte gi liggéey dana am xerañte gi te du xeeb benn liggéey loolu nag boo xasee am rek ñu mën a am yaakaar ci nit ki parce te amuloo ak xereñ ci liggéey du sotti boo amee xereñ bi itam mën a liggéey lool ba ñaan macha allah waaye sawaroo dara du sotti bu fekkee da ngay xeeb ay liggéey itam nag doo dem fenn ndax itam wañ boo gis ci benn lay tàmbale kon yooyu yëpp sëñ bi yu mu doon defar la ci biir mbooloo bi deen ci tàggat deen ci yar moo tax yar boobu mu leen doon yar deen soññ ci liggéey di leen ci tàggat ñu di ko pratiquer di ko jëfe jeextal nañ ci ñoom ba ma ne na ne mas na see joxe ay misaal yu bari ci mag ñi sëñ bi mu leen fi bàyyee dem ci tukkub géej gi sëñ maam Cheikh junj na ko jamono bu metti la woon ñu dem ba gisatuñ sëñ bi teguñ ko bët mu wan leen ginnaaw dem ci tukkub géej gi foo xam ne tubaab yi ku ñu fi masaan yóbbu du delsi yëf yi jafe loolu mett sëñ bi samp ay daara bu noppi lépp di dox am na ñoo xam ne jàngal rek ci lañu fare woon sëñ ndaw Abdourahmane Lo ci daara alxuraan ci suñu maam Thierno ak ku mel ne suñu Mbàkke Buso waaye am na ñoo xam ne booba ñoo doon liggéey di indi ci daara ji loolu la leen santoon naka njëkk kon loolu musta sooxe benn yoon noonu la tawee woon yi fi mais naa joxe ci mag ñi rek suñu maam Cheikh Fall duñu na ko maamam maam Cheikh Ibrahima Fall liggéeykat bu mag la woon rawatina ci wàllu commerce daan investir ba muy jënd ay kër ci dëkki taax yi gën a mag diggante ay Saint-Louis ay kees tey di fa am ay titre foncier loolu yàgg na lool kooku liggéeykat bu mag la woon te bokk ci ñi gën a ràññi ko ci yoon wi am ci am Ibra moom itam ku ko tudd wax mbay ak la ci aju ak la daan réalisé ku mel ni maam Cheikh Anta ci wàllu moom itam commerce investisseur bu mag la woon liggéeykat bu mag a mag boo xam ne li mu amoon ci alal ci jamonoom mel ne moom milliardaire bi gën a mag ci jamono boobu bu duñ ko doon xayma ci jamono yi tey daan milliardaire la dal waaye ku mel ne sëñ bi noonu xabaan ci wàllu agriculture bay ak lam ca daan def nga xam ne kon sëriñ bi tàggat na leen yar leen ba ñoom ñu jëmmal loola ba mujj ñu nekk ay nit ñoo xam ne dañuy sukkandiku ci sa bopp seen bopp ba lu ñu bëgg def defal ko seen bopp te loolu noonu la continuer gëm gi ñu gëm ne dañoo war di liggéey di ñaq lépp loo xam ne lu jamono indi la itam ñu adapté wu ci fas yéene xereñe liggéey yooya di ko def ci misaal rek am na benn gëstu boo xam ne benn ministère bi yoroon wàllu planification ak développement ci Sénégal loolu yàgg na ci 1960 defoon na benn gëstu warande am na lu mat ñaar téeméeri village yoo xam ne murid yi ñoo ko sos dana tax ñu sos ko liggéey bokk na ca ndax diggante bay ak ya ci aju kon loolu rek benn misaal la ci kon mel na ne sëriñ bi moom bi mu jàngalee njàngale mi am na effet bi mu yaree yar itam jeexital na ci murid yi ak ñi nga xam ne ñoo ko topp kenn xamul lii ak misaal la ci rek waaye li dëkk yi nga xam ne moom la murid yi sanc ngir di jaamu yàlla di fa liggéey di fa yare kenn xamul lu mu toll am na sax ci jamono yu mujj yi beneen mbokk mu def ab gëstu ku ñu wax docteur Khadim Sylla dem na ba wàññi ko ci ñeenti téeméeri dëkk mat 400 ci ay dëkk yoo xam ne murid yi ñoo ko sos ñoo ko sanc te loolu day waar la dem fekk ab àll boo xam ne kenn mësu faa kenn mësu koo gor dara amu fa ndox amu fa dara amu fa nga dem sajj ko di fa liggéey di fa ñaq ba mujj nekk ab dëkk boo xam ne nit ñi dañuy ñëw mu xumb nga di fa bay di fa yaxantu loolu mbir yi dafa bu mujj nekk ci seen kil bokk ci seen culture bokk seen culture nekk loo xam ne lañuy doon nantale ba tey yaakaar naa sañ ci ab dëkk moom léegi nekkatul lu bees ci wala gan ci yoon bi moo tax ci wàllu économie ñu mujj am lool doole ci wàll googu nga xam ne sëriñ si dugg ci biir àll bi toj ay dëkk toj ay àll gor nekk ay baykat rawatina mu jamono tekk jamono boo xam ne tubaab yi dugal nañ ci gerte gi ñu tàmbali moom itam di bay gerte bokk ci ñi nga xam ne wàllu production boobu ñoo ci jiitu kenn jiituwu leen ci te ma ne sa cee joxe misaal am na benn bindkat ci tubaab yi sax nag ñoom li ñuy wax faaw ñu bàyyi ci xel wane woon na ne murid yi te loolu 1958 la ko waxoon ci mbayum gerte mel na ne bu ñu doon production bi génn ci réewum Sénégal lépp genn wàll gi ci murid lay jóge loolu la bindkat waxoon am na keneen tam ku waxoon ne te loolu 1959 la ko waxoon ne ci at moomu daal mel na ne benn village rek ci dëkk yi murid yi sos li muy génne ci alal bu ñu ko doon xool million dana ko mat ci jamono booba kon loolu itam am njàngale la moo xam ne ci sëñ bi la ba woon waaye ñoom euh, jafe nañ ko te bu doon wàcc si itam di ñëw ba ci ku mel ne Serigne Saliou Mbacke nga xam ne moom sorewuñu dara ci wàll googu li mu ci réalisé ak li mu ci def wax nañ ne euh, ci atum 1992 xel koom nga xam ne booba dañ koy door a sanc rek daar yi penku yi sax booba demaguñ fa ndax 93 lañ fa dem waaye ña fa jiitu ji woon rek dañuy wax ne ci at moomu 1992 sëriñ bi la nga xam ne moom la jëloon waajale ko ngir jënd ko ay jumtukaay ci wàllu mbay muy engrais baak jiwu waak yee aju mat na 700 millions ca booba waaye at mooma la nga xam ne moom la génn woon ci gerte mille tonnes la junniy tonnes te booba sax nawet bi des naa baax loolu lañ wax booba loolu mooy xel Xelkom rek la wax boobu ñenn ñi rek ñoo fa dem sañ sañcaguñ ko waxuñ nag daara yi ci des ay ñoom njàpp na rek ndookaak laga nag yi ci des loolu kon di la wan dayo boo xam ne Sëñ Saliou àggoon na fi ci jëmmal li nga xam ne moom la fi mooy ndox na li mu fi sëñ bi jàngale woon bàyyi ko fi mag ñi doon ko dund message yu daal yeneen ak yeneen waaye ñoom ñu woon rek ci wàllum mbay mi rek waaye yeneen wàll yi ci des yëpp commerce bi tudd naa ci ni nga xam ne noonu la ci mag ñi joxe woon exemple ci ñoom Cheikh Ibrahima am seex Anta waaye bu ñu wàcc seen ñëw ba ci jamono yi mujj tuuti rek boo xoolee murid yi ci wàllu googu euh, bu ñu waxee bu ñu xoolee ci ay années 1940 jëm cinquante am na ñu fi bàyyi ko woon fii ci Bawol dem Dakar am na fu ñu daan tuddee Pakulambaay yaakaar naa fu ñu la ba tey. am ñu daan tudde ay bawal bawal ñooñu leen fa yóbbu woon mooy commerce ak yaxantu xeebul woon benn liggéey ñëw nekk nit ñu sawar nit ñoo xam ne xeebuñ dara nangoo liggéey di xëy di ñaq jóge ci bawal gi ñaa naan leen bawal bawal yi dem ba mujj nag économie boobu ak commerce baa gisee aju lu bari nekk seen loxo loolu di lu am solo loo xam ne ab bind lay wane boo xam ne wane na ne kon njàngaleem sëriñ bi am na effet ci mbooloo mi waaye am na yeneen nag homme d'affaires yu bari yu ñu xam ci Sénégal dañ bàyyi ko ci gox bi ak ci yoonu murit nekk ñoo xam ne dañ leen tudd ba tey ku mel ni El Hadj Ndiouga ku ne xam na ko homme d'affaires bu mag boo xam ne mu réaliste kenn xamul nu mu toll El Hadj Ndiouga ak Abdou Karim Fall ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne El Baara Mbuub mi nga xam ne moo jur mooy waajuru Serigne Mbuub mii tey ak ñeneen nga xam ne. génn nañu cadre ba nga xam ne mooy cadre mbay ndax loolu jamono moo ko indi woon rek waaye ci yeneen secteurs yi ci des yëpp ci wàllu industrie wàllu commerce wàllu artisanat foo dem fekk lañ fa ña ngi fay yaxantu di fa daan seen doole ba noppi di ci am lu am solo nag waaye boo xoolee ba immigration bi mu xewee dem Europe ak États-Unis ak yu mel noonu murid yi ñoom itam kenn demul ñu des yaakaar naa boo xoolee tey force bi bi ñu am ci bitim réew mbooloo ma bari lool am na ay réalisation yu am solo ci biir yoonu yoo xam ne dañuy mën a teg loxo ne lii moodu moodu yi ñoo ko fi def yaakaar naa loolu itam lu jar a bàyyi xel la te nangoo liggéey rek ak fés goo xam ne njàngaleem sëñ bi na ko ak jeexal ko mu jeexatal ci ñoom moom moo ci moom la moom la wane foofu waaye xer googu ñu xer ci liggéey nag ak euh, ziifar yooyu nga xam ne joxe nañ ko ci tax na murid yi mën a sukkandiku ci seen bopp lu baree bari leen sëñ bi jàngaloon te mooy ñu mën a sukkandiku suñu bopp loolu fees na fi ndax man am na ay réalisation yu rëy rëy ci yoonu murid yoo xam ne def nañ ko fi ba tàyyi te yoonu état nekku ci te amul kenn ku nekk ci bitti di financé wala kenn ku ñu ciy jàppale lépp murid ñoo koy defal seen bopp te loolu nangoo liggéey moo tax ak xeer ci ak faralu ci jumaay njaareem di rek ko saxtal génn murid yi jumaay tuubaa ji ak ni muy rëy boobu ba léegi ak lu ci mas a dem rek ñoo ko def ak yeneen ak yéen raay bi la ko jële woon njaareem indi ko Touba loolu du yëfi caaxaan ca jamono boobu lu metti la woon lu mel ne ay daaray kaamil ak kër gu mag gee yeneen ak yeneen ba ci ay marché ak yu bari sax ay hôpital ak lu ne ñanga ca di ko defar te loxol keneen du ci dugg état sax du leen ca jàppale ñoo koy defal seen bopp ba bi ci mujj mees naa wax projet université bii nga xam ne moom la Cheikh Abdou Lahad tàmbali woon te tey Cheikh Mouhamadul Mountakha di ci bay laaj wu am solo yaakaar naa bi nga ko taxawalee gis ngeen xaalis bu bari bi nga xam ne moom lañ xayma woon ne moo ci war a dem ay milliards yu bari ay milliards yu bari yoo xam ne ku ko dégg da jàpp ne lii moom état dong ko man waaye ñu toog taalaluñ ci kenn loxo dañoo jàpp ne ñun ñoo ko war a def te loolu la ñu ko may weesuwut nangoo liggéey ak sukkandiku ci suñu bopp gis ngeen jumaa yi Masaalikul Jinaan gi nga xam ne bu yàggut la at yii rek ci lañ ko ubbi la ko tabax 20 la ñuy wax te loolu génnewut lu ci poos yi murit yi te loolu nangoo liggéey ak xër ca mooy li nga xam ne moo leen ko may loolu lañ bëggoon a tënk rek ci gàttal sëñ maam Cheikh xaw na ñoo guddal seex waaye thème bi moo xaw a euh, yaatu tuuti te am solo ci ak wet ñoo ngi jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Abdullah jërëjëf sëriñ Basiru kon yaakaar naa ni ko sëñ bi sàkkoon ci ñun. leeral na ngeen ko naññi ci lislaam ni mu soññee ci liggéey waaye ban façon liggéey la lislaam soññee ni ko sëñ Basiru ñëwee mooy lislaam bi mu soññee ci liggéey daa am liggéey bu mu bëgg nga def ko mooy liggéey boo xam ne du liggéey bu araam te it la nga cay amee ca liggéey ba nga bañ koo yàqe te it lu mu néew néew nga doyloo ko ndax bariwaa kuy liggéey di am ñàkk a doyloo lam am wala ay bëgg-bëggam ëpp la mu am ca liggéey loolu mën na koo indil jafe-jafe moo tax nanga nangoo liggéey te li ngay liggéey na ko lislaam nangu waaye loo ca am nga doyloo waaye da ngay gis koo xam ne nii day am weer 200000 ba noppi ay soxlaam ak i dépense am mat 400000 kooku dana am ay tur yu bari yu am ci ci ay mbiram bu boo ko defee nag loolu mooy waral lam am du ko doy muy dugg yeneen mbir yoo xam ne nii mën na koo indil jafe-jafe loolu day day am. ni ni suñu abdulaat ñëwet leer na mooy sëriñ Touba eh, xam nañ ne tubaab yi téye woon nañ ko diggante bu yàgg 1895 ba 1927 mu nekk ci loxoy tubaab yi waaye nag mi ngi woon ci seen loxo ci zahir waaye lim bëggoon a def ci mag ñi mi ngi ko doon def ndax dégg ngeen muy wax ne ramo masir yi ila jurbel la daan nasusin law aynu sirra ma fi sayri ma ramo nee na tubaab yi ñoom ñi ma indi jurbel jàpp na ñoom dañ may tëj booba puñ xamoon li ma sunu borom wan ci sama nekk Jurbel la ma ca nar a de jëf booba waa kon duñ ko def waaye yàlla daleen leen koo nëbbu waaye gis ngeen mag ñi mu formé woon ci yabal leen ñu toj àll yi daan bay nekkoon ay milliardaire da tegoon ci yoon waaye nag jamono bii dafa mel ni te ñooña ba sëñ bii di jàngal loola ay ndaw lañ woon maanaam ay borom ñeent fukki at ay borom fanweeri at lañ woon dem récolter ay millions yu baree bari ci liggéey loolu nag lañu war a roy ma gis ne jamono bii nag dafa am baat yu yuñ yu yuñ bëgg a bëgg a di tasaare ci mur gi mu nekk luñ bëgg a gëm bëgg a tàyyee loo ñu bari jàpp ne daal masalan dangay toog muy dox toog muy dox mu amul fenn dangay toog mu toog kay da ngay toog mu taxaw waaye boo liggéeyut moom dara du dox dangay ngay jéem a jug kër kër yi bañ a xeeb dara loo nekk yàlla mën na la ci barkeelal def la ci dara waa na sëriñ bu ñuy gis mu toog mbooloo di xëy di ko nuyu ñu jàpp ne daa toog rek waaye bu ñu xamoon la ne ci gannaawam xam nga ku toog di dundal lu mat junniy nit kooko toogoo waaye la ngay liggéey xañ na mbay ma ak fa ngay liggéey la nit ñi xamul kon sëriñ si tooguñu loxoy neen dañuy liggéey na ko sëriñ Tuubaa doon jàngale kon toog muy dox moom yaakaar naa ne ku gëm loolu jàpp ne war naa mën a nekk yaa ngi nax sa bopp waaye du lu sëñ Tuubaa jàngale du lum digle da ngay gis it ñenn ñi naan ñaanal ma mbokk ci milliardaires yi sëñ Tuubaa yi te yow xëyoo gontoo bëgg a nekk milliardaire loolu mënta ne amoo métier nekkoo ci dara ba noppi gëm ne da ngaa war a nekk milliardaire loolu mooy solo sëriñ Touba jàngalewu ko sëriñ Touba ñam jàngaloon ñu nekk ay millionnaire da leen tegoon ci yoonu liggéey ñu dem liggéey waaye kenn di tëdd ah magum jëmm la am ay pexe am doole waaye fas yu yéeneetu liggéey te gëm ne dañ ko war a ñaanal rek moom mu nekk milliardaire kooku moom ku ko gëmit yaa ngay nax sa bopp waaye du lu Sëriñ Tuubaa jàngale lu lu mat lu mën a nekk da am lu mën a nekk ak lu mënta nekk waaye loolu moo mënta nekk tey nag fi ñu jeexale rek mooy la Sëriñ di Moxtaar waxoon radiyallahu anhu dafa ne woon nit boo liggéeyul danga nga danañ la jëppi ku liggéeyul ku ne danga nga jéppi nit ñi ndax da ngay jàpp ne nit ñi dañ laa war di jox buñ la joxut nga jéppi leen nit ñi danañ la jéppi ndax koo xam ne liggéeyoo ñaan rek ngay def fu la nit ñi gisee danañ waajaange ne nit ñëw dañ dañ lay gis sax léeg-léeg làqatu la bala nga ak ndax dañuy xam ne yow euh, maanaam li nekk ci loxo nit ñi dañ nga bëgg waaye euh, fas yéene woo liggéey kon ñu xam ne Sëriñ Tuubaa yoona wii sanc ko ci ay waxi neen sanc ko ci ay caaxaan jaamu yàlla ak liggéey waaye liggéey bi liggéey bu sell sàkk lu lew yéene ci jéemu ya jag jaamu yàlla ndax boo liggéeyee li sëñ Abdoulaye wax sëñ Touba waxoon na ko ci njariñ nee na woon bu ngeen liggéeyee def nii bu ëllëgee lu ngeen soxla da ngeen ko mën a defal seen bopp sëriñ bi nag sëriñ Mourtala nag dañoo tànnoon ay thèmes yu bari moom mu ne bii ne jël leen bii ndax dafa bëgg soññ nit ñi rawatina ñi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam ñoo xam ne moom ci liggéey la nekk te it ku ànd ak moom ci liggéey la lay soññ ndax yoon wi li koy doxal képp ku toog loxoy neen wala nga xëy di nelaw ba midi nga yeewu wala nga topp xew yi fu ne nga ne fa naam dara mi doo xëy doo gont bu boobaa yoon wi day dox te yow doo koy doxal doo ci bokk ci wax rek ngay nekk kon nag loolu moo taxoon sëriñ bi wax ne nañu soññ ndaw ñi nañu liggéey te bañ a xeeb te ñiy liggéey it lañ am ci seenu liggéey nañ ko bañ a yàq te lépp lu ñu am ñu doyloo ko waaw li ngay am nga doyloo ko mu doy la ndax dañuy wax ne milliard am koom-koom dëgg-dëgg mooy doylu waaye kii am alal ju bari te doyluwul waxtu wu nekk day gën a def ay tooxi doona rek ngir bëgg alaleen di gën a bari waaye yow yow miy am tuuti boo ko doyloo te bañ ko yàq sunu borom da lay koy barkeelal ba doo soxla li nekk ci loxoy nit ñi kon nag loolu rek moo taxoon sëriñ bi wax ne nañ indi lii ngir soññee ko taalibe yi ñu yóbbaale ko ñi ngi ñaan nag sunu boroom yàggal ko fi loolu moom sëriñ Mourtala ñu yàgg ci ginnaawam di ñaanit màggal gi ñu fekke ko ay déwén yi déwén yi déwén te yàlla mooy ñu kàttan ak wér te defal ñu jàmm ba li nga xam ne moom la ci sëñ bi digee lépp ñu mën a daje ak moom ci barkeb sëriñ Touba jërë ngeen jëf assalaamu aleykum wa rahmatullah